yëpp yëpp monsieur le ministre euh, ñun de dañu am njaaxare ñun waa Médina parce que defe naa ne question boobu j'avais posé sa en commission mais j'avais pas eu de réponse li ñu jaaxal mooy lan moo tax ñun suñu mbedd yi ñu tojal ñu ko bàyyil ñu ko noonu te ba léegi kenn mënu koo defar parce que problème bi am à la Médina surtout ren ci nawet bi dund nañ ci ay ay jafe-jafe yu metti yoo xamante ne nii yoo xam ne waa koñ bi mosuñu ko woon dund te partout nag ci Médina yépp dañu dund ay jafe-jafe yu metti te dara waralu ko nag lu dul suñu mbedd yi nga xam ne plus d'un ñu toj ko bàyyil ñu ko noonu te ba léegi xamuñu problème bi lan la kenn nangu ñu leeralal peut-être xam naa yow di ñu mën a leeralal lan la parce que xamuñu lii lan la tojol ñu suñu tali tali dañ koo tojoo tojoo tojoo toj ba Médina kenn dugg du fa dugg taxi man bu ko ni jëlee taxi boo ko nee Médina laa jëm mu ne la noo dew ma Médina te Médina xamante ne dafa jege ville bi euh, boo ko tàllalee tout droit ba centenaire tali boobu nga xam ne moo ñu séparé ak Gueule Tapée tali boobu yëpp dafa yàqu te ay tali yoon la yoo xamante nit ñi dañ fay faral di jaar lu bëri rue euh, remercier au passage aussi l'honorable député maire Barthélémy Dias parce que ren jàppale nañu ci nawet bi yónnee nañu fi ay moto pompe yónnee nañu ci ay camion citerne pour ñu mankal ñu ndox mi parce que vraiment Médina ren dañu sonn trop monsieur le ministre kooku moom duñu la ko nëbb moom te vraiment Euh, dafay créer embouteillage foofu yëpp liggéey bi lu mu gën a gaaw rek ñu xeet parce que waa centenaire aussi ak ñëpp sonn nañu daal waaw bu weesoo loolu aussi euh, Colobane aussi yàlla tali bi nga xamante ne moo jëm Colobane aussi tamit yoon boobu dafa xaw a metti te yoon la yoo xamante ne car rapide yeeg ñëpp dañ fay faral di jaar loolu aussi tamit ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu si parce que Médina ku ne xam ne ne zone commerciale la car euh, rapide yeeg njagan yeeg ñëpp dañ fay faral di ñëw donc bu fekkente wàllu dem beeg dikk bi dafay créer ay problème daal bu ñu sañoon nga jàppale ñu ci baax baax a baax loolu laa amoon lu may wax comme euh, lu ci ëpp waxoon nañ ko en commission dama la doon fàttali rek merci.